internet Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu waat ah, di leen jëfalaat di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant nee naa leen ñëwaat nañ ci émission bi nga xamante ne si moom mooy sport célébrité sport célébrité nag bu ñu ko déggee yaakaar naa ne war ngeen a war a xam ni que c'est pour artiste acteur actrice célébrité ëmm na lépp tey ma dalal ndaanaan loo xamante ne si macha allah nee naa la Sénégal dañ koo bëgg jox ko noppa ah, muy def liggéey bu nice ci wàllu people dama koy bàyyi mu présenté maa ngi lay nuyu. waaw ma lay nuyu Fafa di am mbégte ak contentement tey toog jàkkaarloog yow ginnaaw bi ma toogee ay diir kenn déggu ñu bare soxla woon ma yàlla bi dara teewul nag tey xam naa ni da nga dugg si sa maam yi ret moo tax nga yëngal bu tey ret nga wax ret Tange ne la ok di nuyu tous les téléspectateurs ak internet yi nga xamante ne ñi ngi safoo di seetaan euh, site bu mag bi di euh, Sénégal 7 muy site boo xamante ne site de référence la muy site bu ma naw parce que ki fa nekk moo tax muy sama grand frère di référence di Papa Ngagne Ndiaye que je salue au passage plus particulièrement képp koo xamante ne yaa ngi suivre Sénégal 7 je te dis salaamaaleykum Tange Tandian nuyoo yow plus particulièrement mais temps dama lay bàyyi rek nga présenté wu waat comme ni nga ko waxee wax ñu yow yaay kan sa parcours kan mooy Tange Tandian boo sa bopp lan nga ñuy wax. waaw xam nga tey toogaat fii ci micro yi di naan kan mooy Tange Tandian yaakaar naa ni mooy géej gi am na ndox yaakaar naa ni jamono ji Tange Tandian xale yu juddu sax di soog xam nañu kan mooy Tange Tandian nit ku nekk nag yàlla moo koy sàkk jël li ko neex def ko ci moom xëy na nag dama nekk ci benn métier boo xamante ni du ma ne maa ci mën. du ma nee maa ci ëpp xam-xam amaana man maa ci gën a xeebu amaani man maa ci gën a doye ji xëy na yàlla bi dara tewu rek moo jël coow li ak bayre li dénkuma ko xëy na du lu ma sàkku sax mais yàlla moo ko def mais yàlla su la tegee dara danga koy nangu li ñuy wax rek nangu dogalu suñu borom day yombal ay jël la kon Tange Tandian benn taalibe Serigne Saliou Mbacke la gëm Serigne Saliou yaakaar Serigne Saliou addunaam ak àllaaxiram yëpp di Serigne Saliou Mbacke juddoo fii ci Sénégal màggee ci Sénégal yaroo ci Sénégal yàlla dogal mu yëngatu ci wàllu communication rax ci dolli événementiel jëm ci wàllu média jëm ci wàllu journalisme xëy na nag people benn branche la boo xamante ni Tange bokk na ci ñu ko njëkk a fii ci Sénégal rawatina ci magasin yi ba bi muy ñëw ci tele bi en 2012 à travers l' émission 100 pour 100 people bi doon daw Sen TV xëy na nag Tange dafa jéggaani woon dem indi benn culture boo xamante ni baaxoo ñu di ko xam Sénégal mu doon culture boo xamante c'était à l'étranger Sénégal nag lu ko bett mën ko moo taxoon nag Tange su waxee ku nekk taf gémmiñam ba tey turu Tange law fépp ba fépp pour Tange mën dox ci àdduna bi rek du ñàkk am ku dox tuuti ne kii du Tange kii du Tange ñu koy santee suñu borom di ko santee suñuy waajur di naan loo xamante ni suñu borom moo ko dogal def ko ci ñun dégg ngeen li nga xamante ne si def na discours am daal wax dafi nga xamante ne si foofu la jaar mais temps tamit ñu gisoon euh, site bi nga xamante ne si moom mooy VIP people nekk site boo xamante ne si macha allah tegoon na tànk trop ci wàllu people tellement am VIP people indil VIP people affaire bi amoon empleur ñëpp bëggoon ko di ko suivre bi ñu jékki-jékki rek affaire yi daal di nekk bastaay daal kenn géggatul VIP people ah lan la nu mu demee noonu daal temps amee ne b bi daa wàññeeku de. waaw xam nga bayre bi mooy comme ni ma la ko waxee léegi rek bayre bi yëpp Tange la xam nga tenge Sénégal du suivre actualité nit lay topp VIP people man naa ne moo mujj juddu ci li Tange créé parce que Tange dafa am benn société bu tudd TGK communication muy société d'événementiel de production et de média je crois que TGK communication lu mu njëkk teg mooy magazine VIP news teg ay jéego yu bëre teg lu bëre ba noppi jënd VIP people bi mu ko jëndee yokk ko ci entité Tange nag moo nekkoon tête bi moo nekkoon ci bopp bi di ci liggéey nit ñi di ko gis à chaque fois Tange tu waxee donc toujours dañuy naan VIP people parce que image yu Tange lañ doon gis demoon na sax ba ñenn ñu bëre Seneweb wala Sénégal 7 wala keneen su leen bindalee ci affaire people lan la ñuy wax Tange gis nga li nga ma bindal ci people bi parce que demoon nañu ba jël tur Tange étiqueté ko ak people donc na comme àdduna day dox xar day weesu mboote dem ba yenn jamono xëy na amatul jot ma jël site bi jox ko ñeneen ñoo xamante ni ñoo ciy liggéey teewut nag ba tey man maa ko moom Tange Tandian mais dafa am ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo jël seen engagement ne nañ mën nañu liggéey bi ñu jox leen ko ñoom ñoo koy doxal tey soo xoolee site bu mel ni vippeople.net dafa am ay journalistes yu ci nekk am ay correspondants yu nekk à l'étranger tey euh, YouTube bii di VIP People TV euh, dafa am kuñ ko dénk muy Abdou Conté dafa am ay présentatrices sam am ay animatrices sam tey ku mel ni Ria mi ngi fa ku mel ni Bintu Rasul mi ngi fa mel ni Ndey Kumba ñi ngi fa kon nag ay nit su ba nga wóolu leen ba dénk leen ñoom it dangay ngay bàyyi ñu prouver parce que toujours man su ma nekkee VIP people ñoom du ñu a feeñ Tange kese feeñ parce que liggéey naag ñu bëri biir VIP people mais ñoom ba tey ji seen tur feeñul alors que ñu ngi def liggéey bu am solo benn instant nag comme Tange am na yeneen yoo xamante ni mi ngi ci nekk ci événementiel nekk ci marketing digital ak communication surtout Tange li muy toggati Sénégal bareetul maa ngi aux États-Unis maa ngi en Europe je suis partout je travaille di liggéey ci ay production comme ay télévision yu mel ni 2STV damay liggéey ak ñoom ci wàllu production donc lu mel ni Leral TV maa ngi ko doon def benn émission bu tudd journal people mais du woon sama production la woon. mais non loolu après dañ ciy ñëw temps dañ ciy ñëw parce que euh, dañu ci 2 boobu laa bëgg nga taxaw fi. parce que gis nañ ci yaa ngi fa doon ya donc loolu moo tax comme Tange tey retiré wu na ci VIP people gisatuñu émission boo xamante ni Tange moo koy présenté gisatuñu information boo xamante ni Tange moo koy joxe donc loolu moo tax ñu naan Tange xanaa dafa bàyyi people wala bayre bi dafa daanu bayre bi daanawul xëy na bayre tranche moo jógee VIP people mais VIP people li mu doon liggéey ba tey am na ñu fa nekk ñu compétent dynamique xëy na nag ay nit yu discret lañu kenn xamu leen moo tax <laughs> Tanzal lañ xam parce que Tanz moo nekk moo di mooy nekk VIP people kon Tanz buñ toogee gisatuñ la VIP people déggatuñ la kon c'est normal tamit nit ñi laaj Tanz fan la nekk. dëgg euh, ci 2S boobu laay taxaw parce que gis nañ fa yaa ngi doon def émission boo xam te ne célébrité en ligne su ma juumulee ñu jékki-jékki gisatuñu émission beeg yooyu noonu ba mu demee noonu. waa déjà pour wax la 2STV. Mhm. Tange ak 2STV c'est une famille El Hadj suma papa la. Abdoul Ndiaye suma rakk la Marème Ndiaye suma maam la hormi dara ormi nii sax Marème Ndiaye ki ko euh, sëram mu leen Ndiaye ak ki jur sama yaayu papa ñoo bokk benn yaay maam la ci man kër googu dama fa bokk Tange nag liggéeyul 2STV comme un salarié Tange liggéeyul 2STV comme ku am contrat Tange mooy dem ñëw am production su amee production mu waxtaan ceeg Abdoul ñu xool lu mën a nekk la ñu teg ko dawal ko par pourcentage lay ñu gañe man maay wuti samay sponsor télé bi tamit su amee ko wuti sponsor ñu séddoo ci digg bi donc loolu lañu fay liggéey Célébrité en ligne benn émission la boo xamante ni émission innovation la pour la première fois dans l'histoire des médias du Sénégal ñu gis mm-hmm. émission bu mel ni Célébrité en ligne mm-hmm. parce que li indi concept Célébrité en ligne dama mm-hmm. gisoon ni que animation Sénégal da ngay invité nit au lieu que nga respecte ki nga invité mu bàyyi soxlam ñëw fekk si la nga koy tuutal di ko damat ma bëgg woon ni sénégalais yi que yow mi nekk ci télé bi yow mi nekk ci rajo bi du yow yaay vedette du yow yaay star ki nga invité mooy vedette mooy star kaddu yu muy wax moom la askan bi soxla mais du yow kon te yow sa jëmm amul solo ci écran bi ma bëgg woon ni sénégalais yi que mën nga def émission boo xamante ni yow mi koy présenté sa jëmm du ci feeñ ndax tamul importance mhm. ma créé boobu boo xamante ni dama ko xaw a copier tuuti ci Canal Plus muy boobu ñu tuddee woon en aparté si si foofu benn fauteuil magique fauteuil boobu ñu créé ko ñuy dégg ay baatu Tange donc fu ma mënoon nekk ci àdduna bi rek su ma invité sama nit mën naa créer question bi parce que on est dans la technologie donc damay wax audio ñu won ma euh, ak euh, digital bi ma gis li muy wax image yu ma ko tegal ñu commenté ko émission boobu di day continuer jusqu'à yow mi diina 2STV yi dafa déménager nekkatuñu ville ñu ngi dellu suñu studio yi fële maison mère jamono ji dañu nekk di teg studio yi studio yi sax pareegul te man sama studio bi ma doon enregistré studio spécial la parce que studio boobu soo xoolee biir 2STV kenn mosu fa tourné ku dul Tange donc dafa am studio bu spécial parce que dañ koy créer régie boo xamante ni dafa spécial boo xamante ni dafa link ak studio bi nga xamante ni day ànd ak son bi donc ci liggéey yooyu la ñu nekk bi ma nekkee Paris sax El Hadj Ndiaye mi ngi may woo mu ne ma soo ñëwee sax am na yeneen idées yoo xam ne dama la koy jox pour ko ci célébrité en ma ñëwee aussi ñu ngi ciy liggéey jamono ji ci weeru koor gi la ñu démb rek maa ngi woon 2STV ak Abdoul ñu ngi doon xool yan plateau yu bees la créer pour ramadan mais incha allahu rabi célébrité en ligne mi ngi ñëw. kon daal la déggee kon bu baax temps jógewul fi nga xamante ne si moom mooy 2STV. Ah, ba tey kon célébrité en ligne day daal di continuer mais ñu gis temps nga jógee foofu aussi euh, dem fi nga xamante ne si moom mooy leeral. compétence naka nga mën a liggéey 2S tamit yow tamit nekk leeral tamit nag. Ah, waa xam nga xam nga wax naa la léegi Tange amul contrat kenn Tange freelance la maison de production laa yor mhm. ma toog nii tey su ma neexee ma créé beneen émission boo xamante ni damay gis Papa Ngagne Ndiaye dama bëgg mu daw Sénégal 7 mhm. su ma neexee ma créé beneen émission produire ko ma ne bëgg mu daw seen TV lenn moo mënul nekk nit mën nga liggéey ci télévision ba pare liggéey ci beneen rajo. mën nga liggéey ci télévision liggéey ci beneen presse écrite wala site internet mais musuñu gis ku am contrat ci télévision di liggéey ci ñaari télévision Tange Tandian rek ko ko def kon ça veut dire que Tange Tandian amul contrat ak kenn. moo tax ni 2STV bi nekkee suma kër. Mhm. noonu la leeral nekkee suma kër. ku nekk xam na ni diggante Dame Dieng mi moom leeral ak Tange Tandian tàkkusaan ak timis la dara doxul seen diggante. daf ma bëgg ba mu jeex takk ma bëgg ko ba mu jeex takk alalam di sama alal sama alal di alalam kon tey su ubbee tele ñu nekk ci jamonoy Covid bi ñu nekkee ci production amul ñu bari liggéeyuñu parce que ñi ngi limité limitation bi tele bi doon lu bees donc man su ma amee benn coup de pouse boo xamante ni mën naa ko jox tele bi damay dem ci daam ma jox ko coup de pouce loolu moo taxoon ma toog ma ne ko bon comme information amul actuellement am na ñoo xamante ni mënuñu lire internet jamono ji ñu bari ci YouTube bi la ñuy nekk di bind ay information ñu nekk ci village yi amuñu une de connexion ba ñu koy suivre man damay dajale tous les actualités de la semaine samedi ma def journal people de la semaine ma révélé ko détaillé ko ci wolof nit ñi dégg ko te bi ma ko ko promettre woon dama ko ne woon dama la koy defal pour six mois après 6 mois dana fekk télé bi nit ñu bëri danañ ko xam te soo xoolee bi ma commencé def journal people yu bëri si la ñu commencé lan mooy leeral TV ñu amul woon TNT sax dem di ko abonné ji mm-hmm. donc sama touche la boo xamante ne benn stratégie de marketing boo xam ne dama ko doon indil sama frère Dame mm-hmm. defal ko ko pour leeral et c' était prévu que après mois d' avril damay arrêté parce que je devais voyager effectivement avril 2022 22 euh, laa arrêté septembre laa commencé ba avril. mais Tange loolu yomb na de loolu yomb na gars yi nee nañ Tange dañ kaa menacé moo tax mu daw génn leeral ndax Tange temps yooyu da nga nekkoon ci politique bi trop trop am ah am Sonko indi Sonko est ce que du gars yi la menacé Tange moo tax nga nga bàyyi mu sedd daal. Fafa dama lay jox benn anecdote rek Sénégal ba Sénégal daj sooy wër ñu ne kan moo fi ëpp fit suñ doon laaj ñett. dañ lay ciy booleel Tange Tandian. Eh, Tange bi da ngaa daw nag. waaw déglu ma rek xam nga sénégalais ay waxam la ku nekk day wax lu ko neex nit su defee dara bàyyi ñu ne dafa daw tombee waral ay gaaf xam nañu képp kuy daw Tange Tandian bokku ci Tange lu mu ragal a wax nga teg paako ci putam mu wax ko ko benn affaire laa am sama dëgg muy dëgg laay teg te dëgg laay wax yoon la woon nag dafa amoon limite limite bi jot na pare naa ci am naa yeneen yi ma doon doxi soo xoolee après loolu depuis mois de mai j'étais paw au Sénégal maa ngi dellu soit Sénégal màggal Touba bul fàtte ni que Tange liggéeyul Sénégal kese je travaille des maisons de production en Europe tey soo xoolee festival couleur kafe bu am Bruxelles le 25 juin bi passé dama ci doon liggéey donc c' était le moment ma préparé ko j'avais des contrats avec Wally Seck bi ñu demee Brescia waroon ko jouer ñu amoon contrat à Valence ma war ko def bi ñu paree j'avais un contrat avec Youssou Ndour pour Bercy donc du ma am contrat événementiel yooyu yëpp après toog fii def ay mission il faut aller honorer les contrats qui sont à mais Tange kon est que yow si sa contrat yooyu aussi tamit nag loo ci yem nag parce que Tange mënoo ñëw commencé benn affaire mu def bëm ñëpp naan am Tange indi Tange indi émission bi nga bàyyi foofu jógee feneen dem leeral indi fa yeneen affaire yu bees tamit ñëpp naan am Tange indi Tange mu mel ne da ngay cuuc daal noonu laa ko mën a tuddee cuuc cape boobu waaw mais Fafa xam nga naan depuis 2012 100 pour cent people euh, Tange Tandian Maty 3 innovation la woon. mais loolu dafa diire woon temps Tange musul non neuf mois la durée pour wax la la durée émission bi neuf mois la durée le 23 mars la commencé 2013 le 31 décembre jeex. mais lan moo waral lool ci moom laa lay mooy question bi ma la posé léegi lan moo waral indi lu bees créer te yow ku la xam-xam ne macha allah tout le temps da ngay indi lu bees da ngay créer nit ñi di ko bëgg Sénégalais yi di ko bëgg mais dañuy jékki-jékki rek gis nga bàyyi loolu. dama lay woon tey lu tuuti Sénégal loo xamante ni ñu bëree xamuñu ko. senegal rëyu rax ci dolli Ndakaaru milieu showbiz bi ngay dégg ñi naan coow lii dafa bare coow li barewul. Eh, temps coow yi bari na. kaay la après dinañ ñëw. kaay la coow yi bari na lool la matuñu cinquante mille benn ron la senegal mooy topp rond bi. fii lay démarré mu topp ni mu topp ni di wër di wër di wër ci ku mu démarré woon day fay keneen ki fay keneen ki fay ba mu ñëwaat ci bopp bi kooku tàkkaat ma jox la benn anecdote tey xoolal ci musique sénégalaise artistes yi. da ngay xëy benn artiste génnee benn son nga xëy TikTok bi gars yi téye ko un mois deux mois pare nañ ci keneen génnee fàttee nañ ko. keneen ki la ñuy toppaat kooku ñu toppaat ko trois mois TikTok bi kii moo fi teg fàttee nañ ko nga tourné waat kii moo fi topp fàttee nañ ko léegi sooy ñëwaat ci cappaandaw ko ka ñu njëkkoon fàttee fa lay commencé waat loolu mooy coowu Sénégal ba ci showbiz bi tey da ngay xool artistes yi da jékki-jékki jamono ñun la Sidi Diop mooy toj mooy toj Aldamadi nga jékki-jékki benn jamono ñun la Wally Seck nga jékki-jékki ñun la da nga déggati Sidi Diop ay temps toog nga fi ay 3 mois déggatoo Sidi Diop kee baa nga doon dégg décembre bi ñëw Wally tojaat réew mi téyewaat ku ñu téyewaat Wally keebaa déggutoo ko fenn donc Sénégal noonu la demee benn cercle bu ndaw la moo tax coow li bare ñu koy nekk nag xëyuñu gontuñu amuñu palt amuñu place amuñu benn xalaatu àdduna lu ñu am may suñu génnee guddi tàllal seen loxo wayaan suñu leen mayee lu ñu dépensoo suñu yeewoo 19 ñu tegwaat kon ñooñu toog day yomb ci ñoom moo tax wax ji mais loolu temps ñan ñoo koy def euh, suma ma juumulee parce que suma ma juumulee euh, gis nga ni Sénégal yow kenn du la wax ndax yow yaay people macha allah artistes yi jeune talent yi nga xamante ne si ñoom nga gis comme ni nga ko waxee nii génn créer benn affaire tey mu am buzz bi un mois deux mois après nga bàyyi ko jéem a nekkaat ci neen keneen ñëw xew comme ni nga ko waxee noonu mais kon naka nga gisee suñu artistes suñu artistes yi nii naka nga leen gisee ci seen maalu musique daal moo tax may wax parce que yaakaar na ni kuy way ku ne euh, ñaan nga yàlla dem international dem fépp macha allah mais naka nga gisee suñu artistes yu tey jii di d'abord li ma lay njëkk wax rek mooy bi ma nekkee France silla la ITV ma koy nuyu de passage dafa am émission bu ma doon def mu ne ma même soo mënul participer yónnee ma audio nga wax ma sa xalaat ci musique sénégalaise ma ne ko si la adduna doy dox te adduna suy dox da ngay ànd ak moom dama lay wax musique sénégalaise ñetti ñetti génération ñun si yu ñu fekkee mooy génération ñoom Youssou Ndour 1970 euh, Thione Seck Ismaël Lo Baaba Maal Omar Pène ñoom Père Ouza. Mhm. deuxième génération bi mooy génération 90 ñoom Pape Diouf ñoom Aline Mbaye Nder ñoom Assane Ndiaye ñoom Ousmane Seck génération 2000 mooy ñoom Wally Seck ñoom Sidi Diop ñi ngay gis ni ñoom Tarba mbay ñoom El Hadj Keita ñoom Momo Dieng ñoom Aïda Samb et consort muy trois générations. Mhm. ci ñetti génération yi ma jàng ci lenn. dama gis ni que première génération bi dañu tarbiwu musique jaar fi musique war a jaar liggéey li ñu war a liggéey ci musique ba tax na tey li Youssou Ndour wayoon 1980 xale bu juddul 1985 tey Youssou Ndour bi muy tëgg première er janvier fii musée xale boobu day taxaw wayaat ak Youssou way boobu pour lan way bi dafa amoon contexte amoon sens musique bi amoon mélodie rythme bi doonoon loo xamante ni dafa cadencé du woon benn mbalax boo xamante ni daf lay divertir tey ma wax la Youssou Ndour Thione Seck Omar Pène Ismaïla Lo soo Baaba Maal soo xoolee li ñu woyoon ci seen àdduna yëpp soo juddu woon tey 2000 ba 2022 soo xoolee ci sa biir dund am na loo xamante ni jaar nga ci muy benn traçage donc ñooñu bay nañu seen waar jël fondation bu dëgër teg ci fenn rek laa jàppee ni que mooy deuxième génération bi xëy na ñoo xaw a raté seen mission mooy génération 90 bi parce que ki la defal fondation bu dëgër yow soo ñëwee da nga war a teg premier étage wala nga teg deuxième étage ba nga xamante ne day taxaw nga xamante ni keneen su ñëwee day mën a yëkkati xëy na nag génération boobu ñoo xaw a tuuti bi ñu xawee frôlé musique bi xaw a jéng tey soo xoolee ku mel ni ndongoloo ndem si yàlla si mais kan moo ko dàqoon way kenn est-ce que tey dund na ci aaram ba mu deewee la ñuy reconnaître talent ñaata artiste ñoo fi nekk talentueux de telle sorte que ba ñu deewee la ñuy reconnaître seen parce que ñooñu aussi bi ñuy ñëw dafa fekk technologie bi egsi wul woon fu mu egsi en 2020 tey maanaam comme tey cette troisième génération bi chance bi ñu am tey mën nga ma neex baat ñu composer la benn musique sampleel la ko ci ordinateur tey soo demee ci Greenfly du publicité mu composer la ko nga génne ci lu neex mais tey suñ la joxoon micro pour nga way doo way tey way boo xamante ni géwal dëgg moo koy way nga xamante ne wayu biir la da ngay déglu Abu ci la nga xam ne ne waykat ndaanaan la kullu fadrin ndaxte ci biir lay wayee mhm. soo dégloo Sidi Diop nga xam ne ci biir lay wayee soo dégloo Aïda Samb nga xam ne ci biir lay wayee te géwal la tey Wally Seck soo ko xoolee au départ ak tey nga xamante ni que vraiment tu vois un artiste qui a fait de choses dans la musique parce que bi muy ñëw dafa ñëwoon parce que bëgg dugg ci musique parce que carrière am football ko mais dafa dem jàngi ji waat way jàngi waat ko teg ko tey Aline Mbaye Nder moo ko dàq live sur scène tey ñooñu ñëpp tey mënoo leen gis ci aar bi mënoo leen gis ci musique bi. mais temps ba tey ba tey ñooñu tey jii comme ni nga ko wax wax nga ko sànq tey ba tey tey jii boo leen nammee boo tegee seen ay son ñoom tey seen ay son dañ lay jàngal comme ni nga ko waxee da ngay déglu seen ay son di di di di yow di di déglu ay son dégg ay paroles yoo xamante ne si da ngay xam ne lii réalité la maanaam musique seen musique dañuy jariñ ñun daf ñuy jariñ waaw maanaam musique gu tey gii nag moom moo tax may wax moom laa wax ma ne tey musique gu tey bi lu tax mu faussé booy yi mën nañu woy tar tabarkalla macha allah tey soo gisee ku mel ni Dieyla su woyee nga ne kii fu mu nekkoon soo gisee tey ku mel ni Jeeba su woyee nga ne kii fu mu nekkoon tey mën naa citer pas mal d'autres yoo xamante tey suñu wàllu ñuy fan lañ nekkoon mais lan mooy problème bi structuration la musique bi manqué encadrement la musique bi manqué tey lan nga ci gis diw dafa àndoon ak kii wala kii bàyyi na ko kii moo doon manager am teggi na ko. ñu bëri dañu foog ni xale yi doon àndal seen koñ suñu demee bay way ñoom ñoo mën a gérer gestion bi la gestion c'est pas comme ça la musique est devenue maintenant une industrie la. da ngay gis tey man xaw ma dara ci musique ma gis booy bii war naa mën a lekk ci moom suba ay centaine de millions dañu mhm. fekkee samay millions investir ko ci moom man xooluma kii la àndaloon nag wala kii mooy mbokk mag wala kële parfois yenn parents yi da ngay commencé signé ñaari contrat ñetti contrat ñi bëgg a jël sa rakk wala sa mag dénk la ko ah, lan la mën a lijjantil mënul la lijjantil dara artiste da ngay am conseil xamul musique artiste da ngay am un manager mhm. ku jàng management mhm. management gestion la laaj laaj tey nga am koo xamante ne chargé de communication artiste bi la nga xamante ne fii nga war a waxee waroo waxee fii kii moo la invité fii nga war a dem fii waroo fi dem fii soo fi demee kàddu bii nga war a génnee mais tey soo demee ba nga xamante ni ñu wekku ci artiste ñëpp si artiste bi lañ yaakaar artiste bi moo leen di dundal est-ce yow mën nga wax artiste bi lu muy dégg loolu mooy problème bi troisième bi tey artiste bi day dem benn milieu du xam sax lu muy solo alors qu'un artiste doit avoir un conseil en habillement un artiste doit être fashion un artiste doit être stylé tey soo taxawee sur scène war nañu xam ne kii y a une différence par rapport à ces musiciens parfois da dox doo xam sax ndax kii artiste la pourquoi nigériens yi raw ñu tey mhm. vas en Europe vas aux États-Unis vas dans les plus grandes salles de xam ne sénégalais yi ñoo leen dàq way gën leen a xam fu mais tey ñooñu raw nañu parce que dañuy jël seen bopp dénk ko nit bañuñu ku leen nax gis nga nga réussir da ngay nangu ku la exploité benn yoon ñaari yoon ba nga gis porté yi nga am koo la nga am mais sénégalais da ngay commencé ak moom eh, tey xale yi tant eh, xale yi ma gis bu million xasee dugg rek mooy loolu de jamono ji xale yi musique TikTok la ñuy def dañuy xool ban challenge lii su ma ko woyee kan moo ciy topp te jamono ji ñiy challenge ànduñoo kenn. mais dafa dem sax ba léegi clip yi li nga xam ne si lan la jël kii ci TikTok yi si la ñuy jël di ko ci boole. effectivement léegi dañuy jël éléments yi ci TikTok yi pour lan naa am nombre de vues. am nombre de vues je crois que am qualité moo gën am quantité tey nga am TikTok bu am un million de vues te amul qualité nga am dix personnes yoo xam te ne dafa am qualité nga xam te ne musique bi day resté mën na durer pendant cent ans ma lay wax daal musique sénégalaise lu tax tey doxut de structuration ñu def ko affaire El Hadj Keita suy joué ñu ne waa Medina Sidi Diop suy joué ñu ne waa Guédiawaye bu njëkk musique yëpp melomaan la woon ay clan daal da dégg ni que kii kat génnee na lu nice tey damay fay sama dem baali ji ko léegi artistes yu ci bari lan la da ngay tëgg soirée da ngay jël billet yëpp wut benn homme d'affaires wala benn politicien mu jëlee ko nga mayee ko est-ce que musique yaa ngi ciy donc bu ñu nax suñu bopp ku jaaxaan di saw sa bopp ngay tooyal yow artiste bi mën nga am say giir mën nañ ci yi mais ñoo topp sa ginnaaw du ñu am dara mais ba tey ci coowal artistes yooyu la ñuy des euh, ndax gis nañu bu yàggul euh, ki nga xamante ne si moom mooy di Diop euh, demoon tëggi fële ñi naan huit ñi naan neuf bari ci orchestre bi gars yu bari daal di disparaître wutu nangootu ñu ñëw en tant que nitu people tey nga nekk artiste dégg nga nekk nit koo xam te ne people ngay def jël artiste yóbbu ko fu ne gis nañu fu ne nga daan yóbbu artistes yi macha allah est-ce loolu tey du yàq ci li nga xamante ne si moom mooy carrière yaram ëllëg su bëggee génn ak ñi nga xamante ne moom mooy doon génne noonu ba tax li ciy xew yëpp xew ci. xam nga tey Sidi Diop ànd ak ay musiciens musiciens yu ñibbisiwuñu dama yaakaar ni c'est pas la première fois mën naa ne ci li ma xam ci orchestre yi ma xam senegal yëpp à part orchestre Youssou Ndour ak Wally sec je crois ak Baba Maal laa gisul musicien bu dem toog musicien yu bëri ànd nañu ak seen artiste toog dem ba benn instant gis suñ seen bopp ci musique bi ñu toog Europe ak orchestre yëpp def nañ ko moo tax jamono ji soo xoolee ñu bëri suñuy tëgg États-Unis wala Europe soxlootuñu sax di yóbbu ay musiciens parce que musiciens yu nekk foofu moom la ñuy sàmbale ñu jox leen notes yi ñu répété ko dama lay jox benn exemple récemment bi ñu demee États-Unis African Leadership Awards ak Mbagnick Diop on est avec Carlou D mais amul benn musicien Carlou D bu dem musiciens sénégalais yi toog Amérique ñoom la ñu jëli ñoom Ousmane Camara batteuru Wally bi ñoom euh, Massamba Diop ñoom Coxo Diagne ñoom la ñu jëlaat nag ñoom ñoo leen rassemblé donc c'est pas la première fois mais nag tey loolu su amee ñoom ñu koy euh, médiatiser ñu koy wax ci presse bi ambassades yi dañuy seetaan presse yi dañuy seetaan lépp ëllëg ci biir artiste di nga dem di déposer ji visa pour say musiciens ñu rejeté la. merci foofu laay waxee tànk loolu moo tey ñu ngi déposer visa gis nga le cas de Kéba Seck mhm. ba mu demee di déposer visa dañu leen rejeté. mais dañuy bañ problème bi mooy. tubaab bi dootul wóolu kan mooy ñëw ak kan moo dul ñëw. loolooy problème bi nag fi ñi ngi yàqal seen bopp. dama la koy wax ñi ngi yàqal seen bopp mais benn côté aussi. musicien seen mais benn côté aussi musiciens yi xëy na gisuñu seen bopp. ci ñi ñuy liggéeyal parce que tey da nga lay leer ni fii Sidi Diop su tey woon micro moom kese mu taxaw five amul instrument bu ko accompagner kenn du dagg ticket xalaatuñ ko sax kon donc bi mooy ñi nekk ci ginnaaw ñooñu dañ leen war a gestu man je contre tey nga tëwaare en tant que un musicien ñu fay la benn cachet trente mille te en général chef d'orchestre yi lañ koy fay ñeneen ñi quinze mille ñeneen ñi vingt mille yi dix mille su dee benn te artiste bi yow la ñuy may ci kaw seen kenn du may musicien bi. ah gars yi nee na gars yi tax ñu daw ñu bari nee nañ tax ñu daw si Diop fayda dañuy tëgg pare ñu leen jox ay vingt cinq mille ak ay trente mille. waxuma Sidi Diop kese artiste yu fi nekk Sénégal yëpp yi ma xam lu ci ëpp trente mille lañ doon fay chef d'orchestre vingt mille quinze mille dix mille. te teewul ñu ngi toog dawuñu. ñu génnee à l'international international ñu fay leen soirée bu nekk cent cinquante euros cent cinquante euros ñaata la matul sax presque cent mille francs. tey nga dem benn soirée ñu fay la cent mille francs nga gàddu say bagage dem sa jabar ne la jëndal ma lii sa doom ne la jëndal ma téléphone nangam est moom mooy jël ay cachet moom la ay géram di may mu war a toogaat waxtaan ak seen ay musiciens xool ay contrat yu solide xamante ne duñ ciy génn loolu suñ ko defee je crois que musiciens yu bëri dootuñu daw mais Tange est-ce que loolu aussi tamit yoon la parce que tamit nga comme ni nga wax ay millions nga jël def say saak di jox sa ay ay musiciens ay vingt cinq mille ay vingt mille ay trente mille mais est loolu aussi tamit neex na ci xol. lu tax musicien waal yi du ñu daw. xalaatuñ ko da leen di fay lu baax. voilà ku ci am soxla mu jàppale la. di yëkkati ay oto di leen may di yëkkati ay teranga di leen may ñooñu tey la ñu mën a am ci Wally Seck mënuñu ko am Europe. moo tax du ñu mais est-ce que aussi tamit am na li Wally am. dama lay wax mhm. yi sundur du ñu daw. parce que da leen mettre dans de très ñi ngay gis seen musiciens yi di daw dañoo xalaat seen bopp dañu xalaat am moom nañ ko wax te dee parce que ku ma ci woo tëggal ma concert lu mu dee dee di ma facturé benn 5 millions. 5 millions boobu nag mënoo jël artiste bi di ko ci fay 90 mille wala 75 mille wala 50 mille. ba pare yow nga bëgg a yanu 3 millions lekk ko artiste boobu su gisee buntu xam ne Sénégal dafa métti te ñëpp ngi wut tukki dafay dem toog. toog ba muy toog day liggéey ba pare di continuer musique di dem di jàngiwaal di gën a yokk xam-xam donc je crois que la faute c'est au niveau des ténors ñi respecté seen musicien seen musicien soo leen doon may million nga leen toog leen ñu ne la tooguñu. ñoom ñëpp soo xoolee tey ak surtout waal yi soo fa demoon presque seen visa yi ay un an ngay gis ay deux ans trois ans parce que xam nañu ñii duñu dem ba toog mais ñi nga xamante ne da nga leen may visa vingt quatre jours xalaatootuñ ñibbi si lan moo ko waral waxtaan wax dëgg moo ci nekk donc nag daw bi du ci ñoom ñoo ko jiitee ñeneen ak ñeneen jiite nañ ko du moom kese moo daw am na beneen artiste bu demoon am na monsieur bu daw ñu donc du moom kese mais ñoom nañu xoolaat seen mais mais mais gis nañ ni que presque su ma juumalee xaaj bépp ñibbisi nañ wala peut-être boog am na ñu ñibbisi mais tey yow boo doon jox conseil Sidi ci li jot a xew nii te yow lan nga koy conseil en tant que grand frère. Sidi su ma ko doon jox conseil comme ni ma ko waxee su ma rakk la bokk naa ci première personne yi nga xamante ni Sidi si ñoom la njëkk am yaakaar ci showbiz bi pour réussir ci. ba muy woo Papis Niang Papis di ma woo ma koy fekk aar bi management di ko accompagner di ko gunge boobu amul kenn ku gëm Sidy si Sénégal à part ay mbokkam yu nekk Géejawaay amul benn journaliste wala benn presse boo xamante ne ñemee woon na tàllal Sidy micro donc li ma koy wax rek ànd naa ak moom fu nekk première tournée bi mu njëkk def man ak moom la ak ñoom Ibou Thiombane doomu Jolof bi ñuy def Bordeaux di def Bruxelles di def Stuttgart di d Doc Ousmane c'était ak moom que talent bi mi ngi fii kattan baa ngi fii musicien yaa ngi fii na xoolaat bu baax suy liggéey ak ay musiciens mu am benn complicité ba nga xamante ne lépp lu mu am rek dina ko séddoo ñoom xam ne ne que du moom moo ko njëkkee du moo koy mujjee yeneen artistes encore ñi ngi préparé waat ak yeneen musiciens pour dawaat. kon donc na focus ci liggéeyam mu jàng ci lii xam ne ni que lépp luñ koy critiquer na jël lu positif li mu téye ko. jël lu négatif bi teg ko fële pour reconstruire boppam parce que am na wàllam ci musique bi dafa war a dem te gis naa ko fu sore mais est-ce tamit gisoo ni ko comme ni ko gars yi du sama question nag gars yee koy laaj internet yi ñoo koy laaj est-ce que du si di war gi nga xamante ne si moom la war ci nga xamante ne si ñoom ñoom nekkoon ay ménagères est-ce que du loolu la ko orchestre bi fay tey. bon loolu moom mënuma ci tontu parce que ñi ko wax rek ñoo ci mën a tontu parce que affaire de war moom ñoom ñoo ci mën a tontu li ma mën a jàpp daal su ma rakk la dama koy jàppale te man maa doon yëkkati sama dërëm sama alal di ko def ci moom ba yàlla def ko ba mu taxaw seen tuuma woon ci moom dara nag kon donc su egsee fii man mbégte lay doon ak contentement parce que li ma bëggoon mooy mu avancé ñiy wax naan dafa war ak wala warul ñoom donc mën a tontu ci question boobu parce que man gisuma ku mu woor ba tey ci coowal artistes yi la ñuy des euh, ndax gis nañ fi semaine bi passé ak coowal Pape Diouf beeg euh, Waly bi fii laay tëgg tëgguma fii coow li jur na ay polémique daal nan nga ko gisee bon pour man amul polémique parce que su dee si Wally la parce que ci moom mën naa ci wax parce que joge naa ko damay am information ci moom quant à beneen côté bi nag bon aw may information ci ñoom barewul li may déggook ñoom sax barewul li may gisante ñoom xam naa ni Wally rek xam Wally ak ni ma xamee Wally du doon kuy tooñ parce que Wally yàgg naa joué Baaramundi tey nag su dee dafa am contrat Baaramundi ma dem ci situ Baaramundi gis ñu dugal affiche su Wally donc demee ba ci biir ñu ne kii moo war a tëgg kële war a tëgg te benn yoon Wally Seck wax dégguma benn yoon ku jógee Wally Seck wax dégguma benn yoon entourage Wally Seck wax te gëm naa ni Wally Seck moo pay avocat ci Sénégal ndaxte ku bëgg a kulantal toroxarat laalal Wally Seck gisuma kenn ku ci wax dégg naa nag ay bruit man nag am nay détails yoo xamante ni nekkuma ci duma ko seet ba may mujj dégg daal mooy li préfet wax comme kii nee na mooy tëgg kële mooy tëgg def na yëfu kilifa ndaxte soo nekkee ci kër nga doon kilifa sa ñaari doom ñi bokk ndey ak bàyyi ñuy xëccoo dara mu leen dafa nar indi coow yow da nga koy nangu ne ko ci fet ko ñoom ñaar ñoom nga xañ leen ko préfet nag bañ na kii ñëw fii fans yi indi ay coow wala ay dégâts ba pare ñuy soog agir fermé na boîte Bara Moly comme ni mu waxee ñoom ñaar ñëpp dañoo am contrat ci préfet laa ko déggee te ki signé contrat bi nekku fi muy Djibi Diallo donc aw ma lu ma ci wax li ma ci mën a wax rek mooy gis naa ni yi daal bi coow li bari dem na wuti voggam tëgg na vogg samedi soirée boo xamante ni macha allah. d'accord temps ba tey ci people la ñuy des euh, gis nañ fi tamit euh, coowal euh, Mbathio Ndiaye am Mbathio Ndiaye am Bass Thioung naan Mbathio lii ñii naan Mbathio la ñi naan jabaru Bass Thioung bi dem sax amaana coowal Mbathio la ak Bass Thioung ndax ñi naan ci kaddu gi ñu baal ma Mbathio dafa ëmb ñu ni ko ëmbal Bass affaire ba jabar ji fay na bi nga déggee coow loolu naka nga ko def. franchement parler maa ngi koy soog a dégg ci yow. parce que man nag jamono ji pour wax sénégalais yi. dëgg yow loolu di lëmbee site internet maa a dégg parce que jamono ji aussi ma wax la Tange dafa am lu bees am nay détails yoo xamante ni fokkatuma si. xar day weesu mbote jamono ji am na yeneen détails yu ma tal parce que même TikTok bi su ma koy xool sax su commencé wax ñàkk fay sax damay avancé dem sama yoon ndaxte Europe bee ma nekk su ma xëyee ci TikTok bi suba ba ngoon dinaa ci jàng lu bëri dinaa ci am expérience mais TikTok u Sénégal avancé loo ma yokkuloo ma kon du ma yàq sama connexion di vider sama batterie ak cause de ça dégguma ko yëguma ko ñoom nag yaakaar naa su dee problème yooyu la jamono ji fi ma toll man maa mag yooyu détails yooyu moom. temps temps mel ni léegi da ngaa ruux de temps su demee nii. mais yow people bu daan am ah. gars yi yëpp yow la ñuy xaar ah nañ déglu temps lan lay wax temps su muy joxe affaire yooyu yow bañ na ba li daan lëndëm ci bopp nit ñi yëpp mais yow ci temps yow la ñuy xaar pour nga jox li nga xam ne moom mooy eh, réalité yi. waaw temps tey nga ñëw nu mu demee nii temps. waaw Fafa jarul yàkkamti gis nga temps boobu dafa doonoon temps bu nekkoon ci benn mission lëmbeen mission boobu pare naa ko manqué beneen level. ku ma fekk tey jii may taxaw di wax ci affaire people ñàkk fayda yooyu yaakaar naa ne samay doom sax ñoom sama doom déjà ren am na 22 ans tey moom moo waroon dox ci people ba ma ciy dox donc yëfu ñàkk fayda yooyu nañ ko bàyyee ñi ñàkk fayda nekk ji ko traité. ba tey ci people la ñuy desee coowal Cheikh Yérim Seck ak Astou ñu ne dafa fay mu ngi këram te gis nañ ni que bi mu nekkee madame sekk ñu bari xamuñu woon ñi naan ay waale naan keneen ak keneen yow yaa njëkk a génn su ma juumulee ni Cheikh Yérim Seck moom mooy ki nga xamante ne si moo soxna as lenn daal la lay xamal tazool du yow Cheikh Yérim Seck suma grand frère la suma xarit la sama nit la mu nekk ci lu baax sama xarit la suma mag la mu nekk ca safaan ba suma xarit la suma mag la je maak moom yàgg nañu du tey damay nekk France Cheikh Yérim Seck di dox ñëw ba sama biir kër toog ñuy lekk ndoo ceebu jën kooku am na lu ñu séq kër bu mu mës a dëkk Dakar xam naa ko te ñu ma xam seen kër fii barewul vie privée la nag takk na Astou Dione Astou Dione dafa siiw moo tax foog ñu médiatiser ko moo ko Astou Dione tas nañu wala fas na fas eh, fase nañu Astou Dione dafa siiw foog ñu médiatiser ko comme ni mu ko waxee keroog ci présentation livre am balaa Astou takk na fi jabar ba am ak moom doom ba ngénte kenn waxu ci ndaxte kooku siiwul tey nag seen vie privée la yàlla moo daganal sëy moo daganal tas sëy nañu ba ñu waree sëy ba ñu waree tas su tasee jeex na. yoonu non tax sax amagul gars dañ ñu dafa fay ndax asu mu ngi këram. seex yéreem ku nekk danga dañu mu tas wala mu fay. yoonu ma sàmba nekku ci yoonu ma demba nekku ci ñoom ñaar la seen diggante ku nekk na dem toppatoo affaire am parce que fii ku nekk sa bopp doy na la misaal ni ko Youssou Ndour waxee sànni mën naa bañ a sori ndaxte dëgg du maasum fen yàkkamtee ah, man de man temps daal man daal man daal man daal fàllu temps xàmmeetu ma ko daal temps xàmmeetu mais temps lii lan la tamit man temps bi ma xamoon ah temps su demee nii man temps xàmmeetu ma la yow temps yow daa mel daal temps yi mooy lool daal wa dañ laa menacé boog te yëgu ma ko est-ce que du yaa ma menacé ah man kay menacé wu la man dama tiit man daal ci yow daal nu mu demee nii temps ka bu ma la indil tey nga teggi teg bële nu mu demee noonu ay yëfi ñàkk fayda la dama bëgg sénégalais yi bu jógee yëfi ñàkk fayda yi ñu jéem a avancé xam ne adduna bi mi ngi leen di raw mais loolu pour nga mën ko xam soo toogee Sénégal doo ko gis foog nga génn à l'étranger gis gaa yi nu ñuy avancer nu ñuy focuser ci yeneen détail boobu ngay soog a xam man parfois damay nekk à l'étranger ma tiim Sénégal ma ne mais Sénégal lii la dund kon man bi ma nekkee Sénégal ci yëfi dof yi laa doon dund. Eh, ay yëfi dof fi a fi nekk. yëfi dof a fi nekk yàq paas yàq téléphone nga waroon lijjanti sa bopp xëy di naan dëkk bi dafa dëgër dëkk bi dina dëgër ci yow ba su ginnaaw suba. ndaxte soo amoon loo toppatoo doo toppatoo ay kii fay nag wala fayut ba muy takk tàggoo ba ñuy bëggante yëgoo takk nga yëg ni nga yëgee takk nga ne félicitation yëg nga ni fay am na wala tas am na nel ah asbunallah ñaanalu ma leen nga dem sa yoon mais loo ciy focusé 24 heures sur 24 pourquoi focus 24 heures sur 24 Cheikh Yérim Seck nangam maam Ndiaye sax c'est quoi ça. dañ ñëw yow bëree ko ils ont leur business. ils ont leur business. waxanaa di nga ñu waxal ci ab Ablaye Diop xaas ak Sumbulu ñoom it seen problème. ñu séparé wu yëguma ko sax. yëgoo loolu. yëguma ko xaas ak Sumbulu. yëguma ko bàyyi ma waaye tamit nag. loolu moom yëg nga ko moom nag Tange man du ma suivre information TikTok du ma suivre information réseaux sociaux télévision laay suivre wala sit internet bu crédible. ma soog ko ci wax mais TikTok du ma ko suivre. ñu tëj people bi Mame Ndiaye mi ci réew mi di yëngal. di lëmbee Mame Ndiaye Savon. woote fii anytime. kooku de bi ma nekkee Espagne laa dégg man leen kii mooy kan ñu ne ma ay saabu lay jaay ma ne ko marketing lay def rek pour jaay ay saaboom mm-hmm. am ci xaalis Sénégalais yi topp ko di ko fii nangam sangam mu xëy tabax ay immeuble am yow mi ko may xaalis nga toog fii di ñaan di ko ñaan cent franc wala soo ko rombee nga ko doo ma kese eh, en tout cas mu ngi yëngal dëkk bi de. yal na ko yàlla jàppale su dee marketing boobu la gis moo koy doxal. Mhm. te mu xam ne ni que sénégalais yeewuñu mën na dox ci seen kaw. na dox ci seen kaw dox ci suñu maay daal di yor ay otoom ay këram tabax ay këram di takk ay oram savon di ñu fi romb takk say or bàyyi ñëlee ñu tardé ñi nekk ci tiktok bi di la kaa di la critique yal na la yàlla defal jàmm savon waaye <laughs> temps lan mooy say projet samay projet comme nuñ koy waxee Tange est là mhm. toujours maa ngi ci milieu audiovisuel samay projet c'est dans le l'événementiel maa ngi waajal un grand événement ak benn partenaire d'ici euh, mois de juin incha allah avant tabaski bi ce sera en Europe avec un grand artiste ñu ngi waajal aussi ay événements yu bare ñu ngi waajal aussi teg benn production digitale ak ay partenaires boo xamante ni dafay relier le Sénégal l'Afrique et l'Europe d'accord loolu moom mooy sax ay projet mais temps xam nga nag euh, du ñu dem te waxuñu ci li nga xamante ne si moom mooy actualité ndax actuellement jamono ji fi toll nii ñëpp xam nañ ni politique bi moom mooy actualité lañ nga nu mën a wax si cas Adji Sarr ak Sonko en tant que citoyen yaakaar naa ni li ma ci wax man Tange Tandian ci dossier boobu nit mënu ci waxaat lu ko ëpp la ma ci waroon wax wax naa ko fa ma ko waroon waxee wax naa ko la ma ci xamoon wax naa ko ba ma ci pare pare naa ci ña ca dellusiwaat nag topp sama ginnaaw di dellusiwaat ca yema def ñoom la concerné affaire de justice la j'ai confiance en notre justice trois pouvoirs la ñu am exécutif législatif et judiciaire man nag jànguma yoon jànguma droit ñoom ñoo ko jàng comme mi ngi ci loxo yoon ba yóbbu nañ ko chambre criminelle amatuma dara li ma ciy wax ba ma ci doon wax audition amul woon confrontation amul woon bi loolu amee je respecte les lois de mon pays je n'ai aucun je laisse la justice faire son travail. mais temps yi coow li da see bëri temps parce que gis nañ que euh, ki xam moom mooy Ousmane Sonko ñi naan day wuyu ji ñi naan wuyu jiwul coow li bëri menaces yeeg yu kenn xamul Sénégal yëpp tiit seen fit yëpp nekk ci diggu bopp yi xanaa tiitoo nag yow tamit nag ci loolu. fi dossier bi toll. Hmm. bépp sénégalais bu yëkkati sa gémmiñ wax ci dossier boobu xamoo luy yoon respecté woo sa yoonu dëkk te nit da nga war a respecté say institution dëkk. ba mu nekkul woon fenn nekk ci place publique ku nekk amoon na ci sañ-sañ mais jamono ji justice kese moo ci am droit ndaxte Maham Diallo yóbbu na ko chambre criminelle lenn la ñuy xaar jour procès flagrant délit la su boobaa nag ku nekk tu es de faire sa commentaire jamono ji képp ku nekk ci mbedd bi du ci wax da ngaa wax li la neex wala wax loo xamoon man Tange Tandian la ma ci doon wax wax naa ko ci jamono ji sama yoon newu ci mais yow temps damaa dégg ñu ne Macky moo tax nangu wax si waxu kii daal nangu woo ci waxi Sonko daal temps daal moom waaw kii la daal waaw Macky Sall daal moo tax daal mooy loolu daal ma may la exclusivité tey lu ma mosul wax mhm. Tange PDS la Ablaye Wade la Karim Wade la ñoom dong laa gëm ci politique Tange ñoom ñoom kese Ablaye Wade ak Karim Wade dong laa gëm ci politique bi ma dalee voté Sénégal mhm. carte bi ma mës a am Ablaye Wade laa ko sànnil ku mais Ablaye Wade nekkatu fi yow tamit nag temps. ñoom laa bëgg ci sama xol ba ma nekkee xale ba màgg ma màgg bëgg a doomam ñu am kóllëre am ngor. Mhm. kon lépp lu ma nar a dugg ci politique jàppal ni que ren Karim Wade mooy ñëw ma dugg ci politique mais su dul Karim Wade amul kenn ku ma mën a jàppale ci politique. naka nga gisee Sénégal. Sénégal naka laa ko gisee parfois damay am yërmande. Mhm. su ma gisee benn jeunesse boo xamante ni parfois damay naan jeunesse inconsciente la. wala jeunesse bu amatul espoir wala jeunesse boo xamante ni xëy na tey ndóol moo ko yóbbu ci leneen amatuñu jotu réfléchir amoo jotuñu jotu xalaat amatuñu jotu analyse ku ñàkk espoir nag fuñ la diri da nga fay dem mais la waaye c'est un pays boo xamante ni stabilité lañ ko xamee Sénégal pays la boo xamante ni quiétude lañ ko xamee Sénégal pays la boo xamante ni moom rek am ci Afrique lu kenn amut muy ay tarixa Cheikh Ahmadou Bamba Sénégal rek la tëdd dañ koy vénérer partout à travers le maam Baye Niass dañ koy vénérer partout à travers le monde maam Limamou Laye Alaaji Malick Sy Cheikh Bou Kounta Ndiassane Sénégal dong la ñu am ngalawaay nañu xam ne ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay ñooy sëyante suñu biir ñooy amante doom suñu biir ñooy mayante suñu biir ñu demee ba Sénégal ñu dara doon ay ennemis entre ñun su suñu biir à cause de lan ay politiciens yoo xamante ni matuñu deux millions ci biir Sénégal xam leen ni gor yi ñu ngi toog mais ñi nga xamante ni amatuñu espoir amatuñu fooy jëm ñu ngi lëmbee réseaux sociaux yi ngalawaay nañu dellu siwaat xel yi ndaxte suñ ko continuer nii ñoom rek ay perte mais Sénégal day jeng rek mais du daanu képp ku fi yëkkati tension képp ku fi yëkkati fitna xamal ni fitna boobu suy jeex yow doo ko fekkee ndaxte ñi fi tëdd ñoo tax kon nag ku nekk na nga toog ci sa peggu ndey liberté d'expression la ñu wax démocratie la ñu wax ku nekk am nga sa carte d'identité ku nga sa carte électeur jarul xiiroo jarul ngaayoo bés bu wootee jotee ñoom ñëpp a ko wax jamono ji fii ñu toll amul fu ñu mënee sàcc élection ginnaaw rajo yi bi ñu baree waxatuma la ak site internet yi nga xamante ne fu nekk ñi ngi fa kenn mënatul sàcc dara bés bu wootee jotee ku présenté candidat dem nga xool yow ki la doy nga dem votel ko ku gagné ñi xam ne que kii moo gagné ñu ànd ak moom démocratiquement kon gisuma fi leneen loo xamante ni war na mën a yàq Sénégal dama leen di xamal ñi leen di naan da ngeen yàq Sénégal bés Sénégal naree yàqu ñoom ñëppay dem seen yoon ko fekkee tey man temps su leen neen nañ taal Sénégal jàppale ni ko balaa Sénégal di tàkk jël naa sama billet naa sama ba dem sama yoon taxaw fële ci gradin yi toog di leen seetaan bu leen nangu ku nekk à l'international mënul ñëw Sénégal di leen naan taal leen taal leen li ngeen di taal seen kër ngeen di taal sa kër doom du génn jarbaat du génn yow yaay noyyi lacrymogène yow yaa koy def doo ca gis kenn kon ngalawaay ku nekk na toog këram ñu ko buggaan ngay waxee gëm sa bopp ñaar fukk boo am nga xooloo ci jënd pour am ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom nga jëndaat ba am leneen yàlla waxul kenn dara. mais temps bala ñoo tàggoo rek parenthèse bi rek ñu tëj ko bala ñoo tàggoo fan yii dañoo génnoon moo moo raa moo laaxu moo raaxu génn wax ay kàddu yu ñaaw yoo xamante ne si kenn rafet rafetlu ko sa kaw euh, yooyu ba nga ko déggee naka la la def kàddu yooyu noonu. kooku du ko déglu. ak li mu wax yëpp si yow. yàlla xam na ni yaa ma koy wax ni mais déggu ko du ko déglu. su may déglu damay déglu nit. mais am na ñoo am du leen déglu duma leen seetaan. ah moo laa de génn na fi wax lu ko neex de. xaw ma ndax dégg nga moom déggoo waaye xaw ma lu mu wax. xaw ma ko danaa dégg turam du ma ko déglu duma ma ko seetaan ndaxte aw ma connexion bi may yàq ci futilité. temps yu bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi. di les remercier di remercier tous les internautes de Sénégal 7 xam leen ni que Tange is come back mënta woon ñàkk donc fallait ko may lii malgré opté naa pour le silence patt bi mais xam nga say confrères suñu la toppee topp foog nga may leen ko donc c'était juste pour dire que man li ma xalaat laa wax su wax ji jubee xam leen yàlla suñu borom la su dëngee xam leen ni que man la nit kese la dama jub di gërëm ñëpp di sant ñëpp di naan yan na yàlla def jàmm ci Sénégal merci beaucoup et bien des choses à toi et bonne mais Tange nan nga gisee célébrité sport bi nan nga ko gisee. en tout cas mooy li may wax rek man quand je vois de l'innovation dama ciy ànd soo gisee ñu bare nag woo nañ ma émission. Mhm. mais yow sa bopp dañ ma tegal concept bi rek. Uh-huh. ma ànd ci parce que damay bëgg parfois innovation. je vois que yaa ngi def benn affaire boo xamante ni c'est tellement rigoureux en plus dafa am sens maanaam c'est une émission relax open la. tey da nga ñëw toog mi ngi mel ne maag yow xamante nañu cent ans quatre dimanche mhm. amul sujet tabou amul dara tu es libre de poser ta question je suis libre de répondre comme je veux je crois que tey képp koo xamante ne yaa ngi yëngu ci wàllu média bul xool Fafa li mu def nga ne xaaral ma defi jukko Fafa def na li xoolal ma xaaral ma xool lan laay a créé loolu mooy innovation loolu mooy développé mais ñun ñëpp suñu defee la même chose day dem nga xamante en tout cas je te souhaite continuer persévérer mais yow Tange tey lan moo waral sa sport yow Tange gars yi nee na da ngay sport hmm, pour taay beeg yooyu noonu génne tablette chocolat yi xale yi jigéen ñi di xool di tipse wala euh, lan moo waral sport wala nga jëm pour defar sa yaram. yaa ngi ree de <laughs> man j'ai été toujours sportif balaa may ñëw Sénégal Paris mën naa la yónnee vidéo yi maa ngi woon dans les plus grandes salles j'ai fait de la boxe je boxeur damay def boxe donc sport dafa bokk ci sama dund en plus fu ñu toll ci jamono li ñuy lekk Sénégal ak tout cela c' pour le bien être man dama yàgg bëgg sport dafa dem ba nekk drogue ci man donc sport la boo xamante ni je le respecte dama koy def depuis ma nekk bas âge dama yàgg def sport xëy na ñàkk temps moo taxoon du ma def sport mais c' est tout simplement en plus je fais de la boxe. mais marié wala célibataire. je suis marié père de trois enfants. merci beaucoup ami internetu Sénégal set euh, yaakaar naa gis ngeen li nga xamante ne si moom lañ leen indiloon ci seen biir euh, émission célébrité star mu nekk koo xamante ne si macha allah ku baax ku ñàkk ki ñaan yow ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci nangul gi ñu nangul pour def ak ñun li nga xamante ne si moom mooy émission bi xanaa di woowaat sponsor yi rek ndax temps nag émission yi ku ko xam-xam ni il fallait que ñuy naa ndox mu doy di naan ay jus yu baax di ay frotté yoo xamante ne si macha allah sponsor yi ñëw leen ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax ndax sport dafa ànd ak ndox naan ndox mu bari naan li nga xamante ne si moom mooy jus bu neex macha allah ak yenn massage yoo xamante ne si nit ki daf koy soxla di leen jox rendez-vous nag euh, ci yeneen i émission ak yeneen i invité merci beaucoup